ما أنبي تغليلا على الإبل شكر الوالدين مولى والد البر آه. يا أستاذ من شرنان أمد الله من قد قد سادر فما نيل والد وفي دار موجود شكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ من أنا محمد في تلأغير لا بأناه علي غير ذا لا من بي تغليل البر يا أستاذ هادي منصورنا والآل والأبي والأشواج قاتبة نرمى بالغارات في تبييد وتزييد والآل وسابي والأزواج قاتبة ما في الغارات في تبويد الواد من ذلنا من علينا شيخ الوالدين إليه البر الأدر في في ذم مرتجمين والآل وثابت والأزواج خاتمة لنا المرتدى من منه المكاين رد النفوس تربية لدين الله إبليس ما ابتسمت منه المكايد ci ubbite gàmmu gi lañ nekk demaguñ ci wax jii may wax ci wàllu kilifteef ubbi téef la waaye fi ma jëm du foofu Mansour bu fekkee sëñ bi soxla wu la jógal bu dee yaa soxla sëñ bi bàyyi sa soxla سونو غور بو باخ جي تيواوان شيخ سيد حاج محمد المنصور ابن شيخ الحاج مالك دون جي وي جورم سيد حاج مالك دون كليفام ديفال كو ليم كو ديفال بام ميل نيم ميل داف سي سانت يالا نيكو سانتو خراب نتا كو خراب ياقنا mu ne fardun farata la moos alal ibni ci doom ju nekk shukrul walidayni santu ñaari wayjuram ku ne sant sa yaay ak sa baay farata la ci yow duut baaraam Seydil Hadj Mali ni ko antal walidu yow yaay sama wayjur albarru yaay ku baax ki yaa ustaazu yow mi nga xam ne lu ma xam yaa ma ko xamal seen jiidu yow sang bi waaye bàyyi dafa ti nga du rëy rutta tàggat nga النفوس بكني تالبي تربية يرجل لدين الله جميل في دين الله كل يوم نيسلي على جمال غير كو جام يالا كليكي ام جري مانو جوك مو ام جري تخنا ابليس مقتسمت ابليس سوتشونا واي تيغاكو مون يو على جمال في الحاج مالك مومنا دافنا جوخاني كوني وخ سيد الوجود تكر عبد العزيز bu yàggul damay jàng benn téere mu wax benn wax bu garaaw waaja nee na weeru fukki fan ak ñeent sama yoon nekku ci bëggatuma ko gis ñu ne ko lu tax mu ne dafa ñaaw waaja nee na bëggatumaa géej ñu ne ko mu ne géej dafa nay waaja nee na bëggatumaa gis jamaa ñu ne ko lu tax mu ne jamaa dafa ñaaw ñu ne ko ah lu dàq weeru fukki fan ak ñeent mu ne xar kanamu yonent yàlla Muhammad ñu ne ko a tabi mu ni ñaari loxoom ya ñu ne ko lu dàq jamaa mu ne muuñaayu bëñam ya bayt baa ngi ni déglu min wajhi ahmada lii badrun wa min yadihi bahrun wa min famihi durrun li muntasimi kooko nu fi tax daje léppi rasulillahi sidi xaaji malik doronte na ko ci téere bi li ci garaaw nag mi ngi ko bind rek ci ñaar fukki fan nas bi texte bi texte bi juróom-ñaari fan la charxa bi commentaire yi fukki fan la ak ñett muy vingt jours mu complété mu def ko junniy bayt ak juróom benn fukk mu daanoo miimiye ñu naan ko miimiya xaafiye mooy tubaab di wax riim soo dee taalif daanee la xarafu m dañ naan riim ba m bu dee kaa ñu ne xarfu kaafiya la bu de n ñu ni nuuniya bu dee bee ñu ni baa'iya la alaaj maali jël lettre alphabétique bi lettre bu ne mu tagg ci rasulillah yi tagg ci Cheikh na Ahmed Tidiane yi wesaare ci xam-xam déglul de xaaji Malick nee na rasulullahi laata muy nekk leer liir la laata muy nekk liir leer la billahi damaa bëggoon ngeen déglu ma te wàññi ngéwéli gi tuuti ñuy way rek nañu ngéwéli ah xaaji Malick nee na yonent Yàlla Muhammad laata muy nekk liir جك نك لير برو بجبريل سيتنا رسول الله نيول مكه نيكو جبريل نياتات نام جبريل نيكو تاكوما سماي اب واي دانا غيس بن فيديو وي فخ سي رونا عرش فيديو بوبو مسان فخ بالاي سوخات ام 70000 فيديو بوبو غيس نكو 70000 فوا يرنتي بي ري نيكو جبريل ياي غوني انا ذلك الكوكب من ميما دون فيديو ni leer ko kiiraay bu njëkk ba na ma tudd mu ne xudratu bu ca topp minnatu bu ca topp aybatu bu ca rahmatu bu ca topp saadatu bu ca topp karamatu bu ca topp manzilatu hidayatu nubuwatu taatu ribaatu shafaatu kiiraay yi jeex alaaji may li bul cuune bu ne dinaa la wax ñaata at la caam kiiraay bu njëkk ba fukki junni at ak ñaar ba ca topp fukki junni at ak benn fukki junni at juróom-ñeenti junni at juróom-ñetti ñaari junni at juróom-benn junni at juróomi junni at ñeenti junni at ñetti ñaar benn alaaji may li topp naa leer ga nekk gu liir mu génn alaaji maay lu dugg na ci fukki géej ñu ne ban ak ban mu ne dugg na ci baxarul mahabba dugg na ci baxarul rahma dugg na ci baxarul nazra dugg na ci baxarul qudra dugg na ci baxarul karama dugg na ci baxarul maarifa dugg na ci baxarul shafaa dugg na ci baxarul hidaya dugg na ci baxarul juud dugg na ci baxarul xikam alaaji maay ne géej yi jeex na dugg na ci maam yi muhammad ngay dem ci abdullahi moo ko jur cheybata jur ko hashim jur ko abdi manaf qusay kilab murata kaab luway ghalib fihr malik nadir كنانة خزيمة مدركة إلياس مدر نزار مع عدنان على جمال رسول الله إن كوي بند سما إمام بول جيجي عدنان تمان وما تخجوك فوفلا يم ستود مام يجيجي نفهن فاطمة سلمى وعاتك حبي وفاطمة هندا لهن سمي وخشية بنت الشيبان وماوية بالواو سلمى وليلى عد لم تلن منهن جندلة لا تنسى عاتكة وبرة ثم بنت سعد ذي الكرم سلمى وليلى ربهب سودة ومهانة ومعدد عل أبيات تغتنني أي بك نتي لمر يغا خمن بن حرف لي دون gis nga boo يلي woon لي بوني yi يعي nga naan alaaj may ni aminatu wahaba ko jur wahab abdu manafa ko jur zuhrata ko jur zuhrata kilaba ko jur foofu la dajeeg maami bàyyi ba da nga naan muhammad abdullahi cheybata hashim abdu manaf xusey kilab ci juróom benneelu maam ba ni aminatu bint wahab ibnu abdu manaf ibnu zuhrata ni ibnu kilab ci juróomeelu maam ba muy mbokk ndeyam di mbokk baayam ñu ne alaaji ma ne kaaba gii ñuy aji dégg nañ ne am na buur bu ko doon bëgg a toji alaaji may li bul ciw ne abraha lañ koy wax waaye dañ ko wax ashram ñu ne ko luy ashram mu ne bakkan ba dafa xar da doon xeex ni dóor ko ca jaasi ñu ne ko bindal mu ne ayna al mafar wal ilahu taalibu wal ashramu almaglubu laysa al algalibu seyd al maali mali na abdullah bi jur rasulillah xam naa ñi mu bokkal ndey ak baay juróom lañu umaymatu barratu atikatu bayda arwa juróom ñi ak abdullahi bi jur rasulillahi ñoo bokk ndey ak baay Seydi Hadji Malick nee na Abdoulaye ba muy denc soxna dix-huit ans la am ki mu denc Aminatu la tudd trente ans la am nee na bisu ajjuma la leer gi wàcc si ci yaay Aminatu waaye nee na ñi ko ëmb juróom-ñeenti weer weer wu ne ab yonent ndokkeel na wa jaa aadamu tabshiran wa shiitu laha idrisa nooxun wa huudun wal xalila sini summa dabiixu kalimullahi kilmatuhu min awali shahri في ترتيب لا تهمي أجمل نكتد رسول الله جل شمم قندما كرم على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما عما بصحبهم سيد حاج مالك بن رسول الله أقمي مغني أدنى نياري تيميري جيجن دينا ينكو لير ريب نسين ياكار تس دنيو أمبون دفن جوي جور خير البريتي وصابي الله مجل مجل مجل مجل كنكم بين المن وما تضيق من النسوان من أسف عرفنا ذاك من الكهان لا تهمي سيد الحاج مالك نانا برسول الله غني عدنا بكي أبتل دجنا نجم أم سج أكتنا دجنا نجم أم سيد الحاج مالك نانا رسول الله بسؤالتنا لغني عدنا وقت ونجل بديو بنيوح مشتري لطولك ميثاق ينكم بين السنغال دنيو بريوه من طلوعه وطلوع المشتري اقترنا يا سعد مقتبس من نوره العمم سيد الحاج مالك نينا مام امينته بمو يجي لوني ند او مات ملايكا نيو راي با يغتو المات وني نكو بندل من لما اتاها الذي ياتي نساء رأت جناح طير نفى ما هل من جسمي Seydil Xaaji Malik nee na rasulilahi bi mu ganee àddina ñetti drapeau la ñu samp ci asamaan si bee nga ca penku bee nga ca soowu bee nga ca digg asamaan si ñu ne ko bindal mu ne raat thalathata a'lamin qad intasaba fi kaabatin mashriqin wal maghrib irtasimi Seydil Xaaji Malik nee na rasulilahi bi mu ganee àddina kaaba ga dafa rëg-rëgi trois jours daanoo côté ndeyjoor ñu ne ko bindal mu ne tazalzalat ustuwaanatul muluki ka kaabatin ثلاثة أيام فلم تخمي مالت مميلا مع الأركان أو سجدا تعظيم مستوجب تعظيم محترم سيد حاج مالك نانا رسول الله ينياري وير لأمرام بما من يتوير لجوك تحو وما من ينتوير لتحو بدقر بما من جروم وير لطل اللخوم جوت ميرب جروم بين وير كم كورسر غنيلا جروم ياري وير تلوخي جروم يتوير جروم ينتوير لمن ولير نين بما أمي دوزا كم كم كم صنغ دال ينكو بينا من حباب الشهرين في الجيم القيام وفي دال غدا ممسك الجدران ذا وقدرة المشي في هاء وأسرع في واو وفي زاي يسعى معسى معتزم في حا تكلم في تاء فصاحته في الياء يرمي ويعي أبصر الجسم ينك على جمال الجتنة من خال الموخلة عبد المطلب كان لقاني أكبر رسول الله تنياتي أبلا دالي يا كارنا فوفلا يتنبيتي أما سماني déggal colonel naan jàpp nga forme عام الثماني وفاة الجد جدي ذا علمين وحاتم وأنوشر وأنا ذي الكرمين وأنو شر وأنا بذكر mu ni kilaab mu ni maag haashim abdu manaaf mu ni qusay mu ni kilaab mu ni kilaab naymata mudirkata yasmudar naymata mudirkata yasmudar qusay مدركة مدركة إلياس مدرك ننسو فيمة مدركة إلياس مدرك ما ميونن من النزار مدركة إلياس مدرك ما ميونن من النزار ما من مدل من ما ما من مدل من ما ما من مدل من ما ما من مدل من ما ما من مدل من ما booba yaa ñu koy firil ba mu tas dina yaa la baabul may jaalisu adna sañ abuba boobo yaa ñu koy firil ba mu tas tasaalan maadan jaalisu adna min abib waaw waaw yaa ñu koy firil ba mu koy jamardan maadan jaalisu adna min abib murafa Nizam Amen. وفاة الجد ذاهن من وحاتم وأنو شروان شروان بالكرم دقيق لي كولان ديل لوي دما تلخيص ميمي دي جامات كو سيدي حاج مالك بن ناغي موني هي تاي دا موم نخون ومن كاج لا لين مسنا Seydi Aboubacar ibnu Seydi Xaaji Mansour toog gor yu baax yépp toog ñépp man lii ñu doyloo ma ci yónni ma ko may nax Seydi Xaaji Malik nee na yónni ci yàlla Muhammad ni cëram toll ni la nattoom toll boroom cër bu ne day am natt première nattoom laata muy juddu baayam gaañu juddoo ba am juróom-benni at yaayam gaañu bi mu amee juróom-ñetti at maamam ji ko yoroon gaañu gaañu la bàyyi juddoo ko juróom-benni at nga gaañu la yaay juróom-ñetti at nga gaañu la maam koo dese yàlla ni ko man te gis nga loolu kat moo xewi si di Xaj Maalik bi muy ñëw Tiwaawan fekk si wu fa baayam fekk si wu fa najaayam fekk siw fa tàntaam fekk siw fa bàjjanam ay nit a soxla ku leen firil alquran doyloo ko mu indiwaale yàlla yàlla fekk fa yàlla gën fami yàlla gën fami qul in kaana abaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwaalu niq taraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا سلوبا من لكم الجنة جلوم يطي خارما دنا لبا كم الجنة سماي ولا الجنة بس دوم ولا الجنة بس مك ولا الجنة بس فمي بيك wala nga jënde ma soxna sax wala nga jënde ma alal jooy fàggu te yaakaar ak xamago dina sotteem déet wala commerce buy bëgg a lam wala kër gu ñu tabax moo la gënal man yàlla fatara bas ko jërëjëf ndooy yàlla nee na xaar ma dinaa la dab ci laa teg li ma yàlla gën fan yi xaaji malik yàlla la indi tiwaawan am yàlla yonent yàlla muhammad juróom ñetti atama ngi noonu deseetul lu dul bàyyi bu ndaw حاج مالك ني وفات الجد فاتك مامم جا عام الثماني نيجي امتي اتون جيروم نيتيلو دوندم اذا انا من مام جدي بروم كومور ñu ne luy kumur ala ju mel ni déchiffrer kumur xam at la ab bi cinq Noun cinquante Mim quarante quarante plus cinquante plus deux ah plus cinq boo bëggee mu gàtt da nga ne Abdul Muttalib biñ koy dugal ci bàmmeel téeméeri atam manqué ne juróom soo bëggee mu gudd da nga naan bi muy dugg ci bàmmeel mu ngi ci juróom-ñeent fukki at ak juróom. ñu ne xaaji jàngal ñu faatu maami Abdul Muttalib lu ñu ciy jariñoo ñun mu ne ku ngeen faatu leeti lu mu rëy rëy rëy ngeen ko muñ ci loolu la sama xel demoon keroog bi Cheikh Hadji Abdoul Aziz génne àddina ba ma dellusi ma ne fekk na àllaaxira ku ko gën ndax fekk na fa yonent yàlla Muhammad waaye bi ñu ko dencee ba ba àddinay tukki ku ko gën du ko fa fekk dama ne bi sa ñab du génn àddina daaw góor a ngi moo ma doon nax kero damay yuuxu ni ci suuf dàll ni wuy sama ndey mu ni ma ah te yow yaay waare bis bu nekk lii de kenn mus koo gis te moom it mi ngi takk bopp bi di ma dëfal di ma sotti ndox ba ma sedd guy sama xel dellu si ci lii ma ne ah kon kat sëñ Abdou fekk na àllaaxira ku ko gën ndax fekk na fa yonent na Muhammad waye biñu ko dencee ba baat nay tukki bi billahi ku gën alxaaj abdul aziz du ko fa fek am lii nga am xam lii nga xam boo daanee li ma fii wécc du may nga mal ndax du doonu ku mayam